yàlla ba tax na ñu dem sol ci ay ñoo xamante ne ay féticheurs ay liggéey euh, la ñuy def euh, tey jii oustaz loolu ñoo ko gisee ana naka la lay def ak euh, lan mooy kàddu ne moom lay jébbal askan bi ci yu mel noonu. ni dégguma ko seetaanu man du ma déglu du ma seetaan waaye nag lu ngeen jàpp bu ngeen ñëwee fi wax rek yàlla jox na ma lu ma leen di tontu. Mm. waxuma man am naa ko de yàlla jox na ma bu ngeen fàttale ko daloon naa fi ci jibar yi mm-hmm. génne leen ko am de yàlla nee na laa yuflixu saaxiru xaysu ata jibarkat mënta jaar fenn ba texe danaa ko alag dee ko tee dem safar dee rek lan mooy fétiche la ma waaj waxoon sëñ Iran dégg naa ngay dal ci jinne ci man boroomi jinne laa parce que bëgguma jinne yi di la daaj ma ne ko nu jinne yi mel maa daa mujj wàcc sukk sama tànk ma ne ko jinne nu muy doxee mu ne comme ma ne ko dangay fan jinne fii lay doxee fii des fii lay dox mais amul ndëggu nii ma ne ko dangay kàcc ci mag la moom a mag xam nga boo xasee boo xasee tooñ dootoo am doole mm-hmm. ma ne ko lu jënne di xeeñ mu ne man koy jébbal naa la lépp <laughs> ma ko xam nga garabu neew doomu neew mu ne ma ne ko li muy xeeñ la jënne di xeeñ ma ko boo duggee ci ndakaaru bi oto yi ngay gis bari ñu koy dawal ay jinne lañu loo foog ay mbindeef lañ comme ñun rek te ñun ñooy seen sang ndax yàlla dafa yónni yónent bi ci jinne yi wa is saraf naa ilayka nafaran minal jinni wax naa ko benn kilifa ma ne ko moo man jinne bu ma yëlifee man jinne mënumaa maa ko yëlif ba ma koy am judduwuma manaan jinne jinne du ma yëlif jamais parce que xam naa ko yónent bi te mooy suñu fàttal jinne yim fi bàyyi ñoo leen yëlif ñun nit ñi hmm. Souleymane amuloon ay jinn ñun ñoo leen yilif ñun nit ñi ay masque la jëndal bakkanu nit kenn du ko faat ci noonu loolu la alxuraan wax bakkan bakkan rek rey nga nit ki dundatul nañ la rey nga bañ a dund point waaye ay droit de l'homme lan mooy droit de l'homme xanaa ki dee du l'homme waaw dama ne ndax ki dee xanaa du l'homme lan moo doon droit am bu muy dund nga xañ ko ko nañ la ko xañ moo tax yàlla ne an nafsu bi nafsu loolu muy droit de l'homme bakken bakken rek wal juróoxu xisaas ku jam nit nañ la jam natt paaka bi ba mu yegg ñu rocc ko jam la ko ba mu yegg fa mu yemoo alquran ne wa fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab su ngeen bëggee dund bu sell ko def def leen ko léegi ngeen am jàmm waaye da ngay def dara ñu laal la ñu ne aadama mooy patron mooy kilifaam mooy sëriñam aadama wax ñu bàyyi iraa def ñu tëj ma ba damm ca caabi ja kenn du ngaan parce que aw ma kilifa man fi de sama kilifa yàlla la ku may boole boole maag yàlla jeex na aw ma benn kilifa yàllaay sama kilifa bëggoo maa yilif bëgguma nga yilif ma jeex na soo ma bëggula la yilif bëgguma nga yilif bi ma amee ndey am baay yenent bi ni ku bëgg ngërëmu yàlla ut ko sa ndey ak sa baay fexe naa ba sama baay gërëm ma sama ndey gërëm ma maa yóbbu sama yaay yemma ma faatoo Tiwaawan ñu ngi ko suul Tiwaawan sama baay jàng la ma santoon ba léegi génnu ma daara falaa takkee ci daara maa sama ndigalu baay ba léegi ba ci siti tey maa ngi sama ndigalu baay bu ma amee ngërëmu baay ak ngërëmu yaay lu may dee sa ngërëm gërëmal say doom doxal fële <laughs> kon nag ci yooyu na ci màkki jóg moom amul lu muy ragal bala man mu joxoon ma àtte <laughs> na ma jox ma nekk procureur yi di àtte ngay àtte may àtte xoolal lii <laughs> ma <laughs> lii dee lañ gën a wóolu ci yàlla soo xëyee tak sa ginde sa jabaat taaf wala bu ngeen tëdd tabu leen ngeen dëgg de kooku sama xarit Abdoulaye Diouf Sarr war na ci xalaataat la monsieur le ministre xalaatal ci li ma wax les médecins xalaat leen parce que bu tëdd jotee maag sama jabar yaramu leen ñu bokk benn mbàjj yoruñu masque waaw fóonante ba nag ca gémmiñ ñi ci masque woon gémmiñ bi ci bëccëg corona mënu faa jaar riiso bi ak laxaso bi corona mënu fee jaar buñ xëyee suba làqarte ko ne laxas ki ñoo saytaane <laughs> kon eh, ñu ñaan waa réew ñoom aadama seen jabar yi ak ñoom bëgg bàmb sëñ mun taxaa ñu ñaan leen ngeen oon ñaari lal mm-hmm. bii yéen bii seen jabar yaa ngi dégg li may wax bii yéen seen jabar ngeen beroon te takk masque mm-hmm. ah waaye bu bëccëgee ngeen takk masque bu ngeen ñëwee ci man su guddee ñu laxasoo. ñu laxasoo. ana masque. Mm. xanaa ko ah, kon euh, bu guddee corona bi day jël congé. defe naa day <laughs> parce que corona liggéey du liggéey guddi kon. <laughs> moo tax ñu bàyyi. heure la seen jamono. ayca salaam mais ci wax leen ne lii ku tudd ko cere. <laughs> wóolu leen yàlla ngeen noppalu. Mm. aca waaw question bi